rahim asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen di gërëm di leen di sant di nuyu waa réew mi nuyu waa bitim réew tey nag dañ ñëwoon ci suñu vidéo doon waxtaan ak yéen tey lu jëm si wàllu agression bi nga xam ne moo nekk ci àdduna bi nekk ci suñu réew mi nga xam ne mooy Sénégal toujours nga dégg ne jam nañu nit mbala rey nañu nit mbala agressé nañu nit ñi koy def nag ay agresseur la ñuy doon ñi koy def ay bandi la ñuy doon ya nga xam ne Eh, ñi ngi si réew mi nangu ñu liggéey lu nit am ñu jëm koo nangu mbala nga toog sa kër ay sàcc fekk la fa la nga jot a liggéey ou la nga jot a am ñu dugg sa biir kër xeex ak yow xeex ak sa njaboot suñ la mënee gaañ ñu gaañ la loolu nag yàlla dimbale nañu tey ñu ànd ak ay kilifa ya nga xam ne am nañ si saafara kilifa yooyu tey loolu nga xam ne bandi yi ñu koy def ak agresseurs yi eh, yor nañ si mbir ma nga xam ne tey mu ngi nii Euh, ñoom weddi gis bokkul daañ ci waxtaan ak ñoom ñu wax ñu saafara boobu nan lay demee ak ñoom nan lañ ñu ko joxe pour ñu dimbali si askan wi dimbali si doomu aadama yi bisimilah rahmaani rahim comme na ma ko daan waxee rek euh, gis ngeen kii bi moo nekk nii këriñ gaa ngi nii léegi dama koy teg nii wirdu xale bi xale bi na ñëw waaw muurul bisimilah kilifa gi wàcc na waaw kilifa gi maa ngi nuyu bu baax na ko maa koy ziar waaw kilifa gi tey dañ ñëwoon tey si suñu beneen vidéo di waxtaan lu jëm si wàllu agression bi nga xam ne ak rey yi nga xam ne bëri na si dëkk bi ak nit ñi ñuy faral di jàmm waaw ak ñi nga xam ne dangay toog sa kër ay bandi dugg jëflanteeg yow gaañ la nangu sa alal mu doon la nga xam ne bëri na tey jii si biir euh, dëkk bi ñu bëggoon yéen ñi nga xam ne yàlla may na leen may leen xam-xam ba nga xam ne bu wër la euh, ngeen jàppale ñu si jox ñu si ay saafara ya nga xam ne doomu aadama yi daañ dégg kenn ne war a mën a défendre boppam si côté boobu euh, bisimila nga jëm see waxtaan ak euh, askan wi ñu dégg bisimila nee na koy jam doomu aadama yi neen mm-hmm. loolu yàlla jox na leen xam-xam boo xam ne mm-hmm. képp ku ko takk wala nga sangu aaya bi wala nga sangatoo cangatu garab bi nee na mun mm-hmm. nga dox fu neex nee na mun nga dox sa guddi nee te kenn la laal nee day fekk na ngay aar sa yaram nag nee ak fi seen mi toll képp ku fi aarawul sa bopp nee na dañ lay rey rek nga dee perte nee na nag yàlla ñoom jox na loo xam ne mm-hmm. bés bi nga xam bés boo leen ko jëfandikoo mm-hmm. da si gis résultat ne ndax nekkuloon ci lu dul jàppale doomu aadama yi. Mhm. di leen di si wàllum lu bon daal. Mhm. di leen di jàppale. Mhm. ak ñi nga xam ne dañuy dugg ci kër yi nangu lépp loo li nga xam ne amoon nga ko. ñoom loolu yor nañ ci dara. ñoom tamit ak wàllum sàcc yi. ñoom wàllum sàcc moom boo ne jox nañ la loo xam ne boo ko defee sa kër. sàcc du am droit dugg foofu. nee na wala wala bu fi duggee. Mm-hmm. leen dina sàcc ba pare waaye dootu mun a génn. Mm-hmm. leen foofu taxaw. Mm-hmm. leen ba borom kër gi ñëw. su nekkee moo koy baal mu baal ko leen dina daal jàpp sàccam daal. dina sàcc de waaye dootu génn si kër gi dina dugg. ba jël kër gi baal ko. wala mu def wala daal ñoom ñaa xool daal duñ koy def daal. yàlla mel na leen xam-xam. jërëjëf kon ñoo ko déggandoo ñun ñëpp ni ko kilifa gi waxe Euh, euh, tey képp koo xam ne mbir moomu soxal na la euh, dinañu jëflanteeg yow si suñu numéro yi boo ñu contacté parce que adduna bi toll na diggante ba nga xam ne comme na ma ko daan waxee rek rey yi bëri nañu jam yi bëri nañu dem bay tiiri nit fetel sax dafa bëri ñoom nag yor nañu la nga xam ne bu ñu la ko joxee nga takk ko li aaya la nga naan ko sangoo ko bu soobee yàlla si kattanu suñu borom agresseur mun na jóge fu nekk si àdduna dulu bu jabe du dugg du la mënal dara lolou noonu nak nga xamne kilifa yi ñu ngi koy joxe sana rien voir bokul ak dara si nga febar dem hôpital ñu war la pikir pikir ba dina dugg parce que lolou pour mu fajj la pikir ba dalay fajj mais nak lolou du dara si bokewul ak non bi nga xamne dafa am intention pour gaañ la bu dee noon bi la gaañ bobu mu lay bëgg a gaañ bobu bu yalla niko kilifa yi joxe gaañ boobu du bu bu bu la dóoree jaasi maamu tiire la fetel fetel boobu du àgg si yow waaw bu fekkee nag nag da nga dem nag pour faju ngir yàlla tax si sa yaram kooku moom bokkewul di nga mun a faju sa faj loolu du si dara loolu empêché wul dara loolu xam-xam la ba nga xam ne du man maa ko créé xam-xam la ba nga xam ne eh, eh, ay kilifa ñoom ñoo ko joxe weddi gis bokk si comme ni ma leen ko wone mu ngi noonu comme niñ ko waxee képp koo xam ne soxal na la te lii ñëpp la war a soxal parce que toujours yow yaa ngi génn du guddi gi di bëccëg di suba du ngoon nit nga xam ne rabbil alamina bi nga xamee ne yàlla boole nañu ko ay kilifa ñu ñuy jàppale macha allah euh, kon ñu ngi leen di gërëm di leen di sant képp koo xam ne soxal na la suñu numéro mi ngi.